رحمة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم بهذه الأمداء وبشر بها وجميع أحبائي صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين عتاب بالمملك الأوتان باغنا سلي من الشيطان بدأت بسم الله والرحمن وبريم المالك الأزمان فتى من سماته الفتاة للمصطفى سماته المفتاح بان لكل من لو تراه أن امتداد منتقى asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk taalibe baax ngeen fii ci ngir lii muy woote muy sant sunu borom suñ boroom nag ñëpp la war kon ko koy def rek ku nekk ku ko dégg am nga ci wàll di woo ñëpp ñu fas ko yéene ñëw taxawu ko def ci la ci war ndax fu dara nekk nag suñu borom moo ko fa def te suñu boroom <coughs> boo ko defee benn moo fay defuk dana koy dolli delloo la ko kon nag nañ ci góorgóorlu lu baax ci bés bi. te xam ne bés bi ñëpp la ñëpp ko bokk ndax suñu borom moo yaatoo noonu ay mbiram moo yaatoo noonu rawatina ñu koy defal ci dëkk bu tedd bi dëkk Seexu Xaddim suñu yaakaar tey ëllëg moom mi nga xamante ni boromam danga ko ñoroon leneen ñoru ko léppam daraam génnul yàllaa ko yonent bi sallallahu alayhi kon nag <clears throat> ak njabootu kenn ci njaboot gi boo taxawee ne day sant boromam ñëpp. kenn ku nekk am nga ci wàll am nga ci taxawaay am nga ci xalaat am nga ci jëf moo xam nga def ko moo xam nga ñàkk ko def waaye war war sa warteef la kon moo waral ñu xëy si fii si suñ seex mi ndax bés bu noo ko bokk ñu jàppale di si ñaan mu yàgg koo def yàgg ko taxawu ak njaboot gi te lépp loo xamante ni moom lañ ci ñaan sama borom nangul na ko di ñaan sama borom nangul na ko baax te falul ñu ko fay ak barke Seexul Xadim <coughs> di ñaan njaboot gi it ñu góor taxaw ci gën cee taxaw bu baax baax ak fooy mën a jógee ak fooy mën a nekk ñi nga xam ne lu baax lañ fi woote lu baax lañ fi sàkku te ko fi sàkku it mën nga ko am ci bu rafet kon nag ñu leen koy eh, sant di ko sant njaboot mboolem njaboot gi rawat na waa Kër Sëñ Xaasim Mbàkke ret na waa Kër seen Cheikh Mbàkke ndax bis bi seen bisa bokkuñu ko kenn ku fi ñëw rek ñoom la jàppale ñoom lay dimbale kon nag nañ xam ne bis bi bokk seen bis la di ñaan nag euh, mboolem fu waay mën a jóge nga ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm sama borom la nga fay sàkku sama borom la ko ci barke Seexul Xadim di sant nag sëriñ Cheikh mii nga xam ne <coughs> moom doom la ci kër gi di jërbaat ci kër gi <coughs> di suñu mag di suñu xarit di taalibe boo xamante ni lu yàgg yàgg la waaw lu yàgg yàgg la tey boolewuñu <coughs> àdduna boolewuñu démb leen àndoon te ànd bi ànd bi ànd ngir yàlla rek la lenn lu dul yàlla raxu ko ndax ànd boo xamante yàlla rek tax moo mën a demee nii moo mën a dem ba kenn xamul fa mu yem ku dul suñu borom kon nag yàlla ñu yàlla yàggal ànd bi euh, te jàppal ñu taalibe gi bu dëgër bu dëgër dëgër ndax ak taalibe rek mooy li am solo. lu waaye mën a am lu waaye mën a xam ak lu mën a doon ak bi rek ko am njëriñ yàlla ñu ko yàlla defal te téyel ñu ko te nangul ñu bu baax a baax téyel ñu suñu lislaam <coughs> ndax yàlla ku mu bind ku nekk ngir nga jaamu ko rek a tax mu bind kon nag yal nañu yàlla xeetal ci boppam xeetal lañu ci jaamu yàlla te luñ ci jaamu ma nangul na ko ci barke Seexul Xaadim jërë ngeen jëf ñu sant ñëpp nag di gërëm ñëpp bismillaahi rahmaani rahiim laa xawla wa laa quwwata waaw jëmm ji nga xam ne moom moo doon wax nag mooy Serigne Khassim Mbacké ibnu sëriñ Cheikh Xaasim Mbàkke moom moo fi mooy sama sa la nekk fi sëriñ Xaasim Mbàkke ah, teewal sëñ Abdou Baaxe mi nga xam ne moo mooy xalifab sëñ Xaasim Mbàkke ak i rakkam sëñ Alaaji Fàllu moo teewal njaboot gi yëpp ànd ko ki rakkam ah, ñun nag mënuñu ko fay ah, li mu wax rek doy na sëkk dañuy ñaan yàlla sama borom guddal fan bi wéral cër yi bi jaay Seydina Muhammad Rasulullah barke borom Tuubaa loolu lañ koy ñaanal ndax amuñu lu dul ñaan ci yàlla moo ne ñaan leen ma may leen ngeen sant ma ma dolli leen kon nag bu amee lu mu ñu jox ah, mu wéññeeku ni ñuy sant ñu sant gu fés ak say bokk ñoom ñi ñëw say bokk kon ñoom ñi ñoo ci jiitu lépp lu ñuy def ku fi ñëw ñoom ñi nga ci dimbale kon nag ñoo ngi santaat yàlla bu baax ah, bi nga xamee ni ànd ñoo ngi fas yéene ko liggéey sant le sëriñ Touba yàlla ndax lii ci santuk sëñ Touba rek la dugg ndax sëñ Touba rek lañ yaakaar tey ak ëllëg mooy àddina mooy àllaaxira mooy alxuraan mooy ki jëmm ji fi jóge léegi eh, taal bi mu xaddam bi fi jóge loolu la wax mu ni boo ne alaaji Malick mu ni baax na nga ni eh, diw mu ni baax na nga ni diw mu ni baax na nga ni sëñ Tuubaa mu ni ah kooku kéemaan la sëñ Tuubaa moom kéemaan la ndax mooy kéemaan suñu boroom waaw eh, sëñ Xaas Mbàkke nag ñoo ngi lay dal ah, di la targalal di ñaan yàlla sama borom guddal fan wi ak njaboot gi yëpp nga yàgg ji te xale yi lii la sëñ Cheikh dénk yàlla na yàlla sama borom téel la ko ndax bu la ko téye rek mu dëgër yàlla na ko sàmbaram téyel ci barkeb Sëriñ Tuubaa ndax sëñ Cheikh nañu ànde woon rafet na lool ci yaa ngi nii di ko mottali kon nag yàlla na yàgg ci yàlla na sax yàlla na dëgër sëñ sëñ bi sant nañ bu baax ndax njaboot gi moom la ko dale ci yow ba ci këddee ne naw ñëpp dañ maa jàpp ngir sëñ Cheikh sëñ Abdou Samad mii noonu la ko sëñ Cheikh tege woon sama loxo ñu ànd démb ba bis ni ki tey kóllëre googu mu koy jàpp ba bi fu ma nekk mu fekk ma fa kon ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax léegi di ko ñaanalaat doole yàlla sàmba mi doole koy tawfeex waaw barke sëñ lii la sëñ bi dénk nag wax dëgg yaa ngi koy yaa ngi ko téye yal na yàlla sama borom gën koo téye rek dool dolli la wér dolli la wér sëg ak dolli la tawféex yoo xam ne da nga ko àndee ko ne yëpp jërëjëf sant nañ la bu baax تنوير موجل الشموس والبدور ينقاد للمختار ما انقاد الكرام لو بكرد قبل كرد من مرام رفع رافع رفعا فاقا وخلد الصفا والوفاقا أمداه قادت لنا الصلاة والأمن والتوفيق والفلاح حسنا سعادة بمن به الورى خلق من قاد إليه سورا نكن في للقديم téye loola muy démb bëkk démb nga téye ko sa diggante ak moom kon li ñu doon wut cib sëriñ loolu laa gis ci yow kera bi ñu ñëwee ba yendu ba ngoon saa bu bëggee jóg danga ko ni mënu koo dem mu toog ba ca cérémonie ba nga ne kon ca biir rek nu ànd dem bi daataa ko jóg laal ni sëñ bi man na Cheikh Mbacke ma fi indi moom nga dëpp sëriñam ma ànd ak moom ñëw ci bis bi waaye xam nga lu ma fi téyee mooy yëg-yëg bi ak yitte ji ma nga nga nga téyee ko doomaal bi Cheikh Mbacke ñëwee da nga koo téyee taf ko sa bopp fi nga toog la yendu ba keram ñuy dem ci cérémonie ba ma gis ñeneen nit ñëw bu ñu leen yoolee ni ne kii de noo ànd dañu ay dëkkandoo ñu ñëw ci bis bi nga nga saafoonteeg ñoom joxleen leen yitte ju mat man la man dey sa yitte ak say yéeg moom fi téye ndax donte taalibe la waaye kii mooy nga sëriñam waaye bis ni ki tey sama sëriñ ndax bu ma gisuloon loolu am naa fu la ci toll ne war rocce ko dem ñibbi dem sama yitte man keral lam njëkkaan na boobaak léegi yaakaar ci cant euh, màggalu sëñ bi taf daa am fekk fu ma ne kon bu bis bii ñëwee nga xëy ñëw teew Cheikh Mbacke mbooloo ne ci ginnaawam muy bisam mu képp sëriñu Cheikh Mbacke xolam sedd na guy démb tey soog a ñëw waaye nag démb am na tey am na ndax démb mën naa yàgg lool mu dem ba paase nga doxee ak moom noo xam ne waaye da nga koo gën a confirmer wan ko ko maanaam démb la woon lu jiitu sëñ bi kon ñu ngi lay ñaanal li mu doon ñaan te biir suñu borom guddal sa fan wéral say cër wu ci bis bi nag lu dul yàlla kese tey man mii di wax nii damaa topp seex Mbacke ay at nu ànd mu wënuma lu dul yàlla lu jógewut ci suñu borom lu dul yàlla ñoru ko bi mu jógee ca lool nag maanaam leneen boolewu ko ci lu dul sëriñam rek bëgg sëriñ Touba lool ba jeex ci waaye bëgg waa kër sëñ Cheikh Xaas kon bu nu àndee am naa fu la ju toll ni ba may tuuti laa du toll nii laa ku ma bëgg ni kaanu ana man la fu ma jëm ngan ma kande man la man bu may dem daay xam fu ma jëm bu fekkee xaw ma fu ma jëm du ma dem jooju fu la am naa ko moom ba may tuuti ba tey jii nii loola ba tey jii nag laa ko gën a ba ma ko xoolee gis ci moom yàllay kese moo waral maanaam ma saxoog moom taqoog moom ànd ak moom ba lépp lu may wax ci moom it lu may ñime la ma gis téye goo ko téye kon yal na yàlla guddal saw fan wéral say cër bis bii nga xamante ne nag maanaam yàlla rek a tax mu di ko woote muy sant sunu borom goo xamante ne ndigal la ci am mu di ko def ñoo ngi ñaan nga ñaanal ko mu yàgg koo man yàgg ko ni mu ko bëgg a yóbbu sunu borom yóbbal ko te nga lépp nag barke Seexul Xadim sant nañ bu baax gërëm ñu di doolee santaat nag di doolee santaat bu baax a baax a baax bi nga day mel ni dañuy nit boo gestoo gis sab lépp lu mu mën doon lu mu doon neex neex gënati naa neex loola naqari wan bu doon naqar sax bu dikkee nga gestu sëb sëriñ loolu day neex surtout nag sant suñu borom ñëw ànd koog moom kon alhamdulilah Mbàkke yal na yàlla yàggal la fi wéral la ñi nga xamante ni ñoo ñëw yore kaamil yi doon jàng kaamil bi yalla téel leen boppam barkeb alxuraan yalla na leen topp ci kàttanu suñu borom tubaab la wata ndax dara ëpp ko doole muy bis bii alxuraan ji bi mu ñëwee nga ñëw kon day mel ne bu ñu doon mat sax man lépp mat na nee na mi ngi leen di nuyu yéen fi teew yëpp nee na mi ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nee na mi ngi leen di baalu ak di leen baalu àq. nee na mi ngi ñaan yàlla mi nga xamante ne moo tax ñuy def bis bii. mu boole nu jéggal nun ñëpp. te jéggalaale sunu woy dawle ya. nee na yàlla. ay mbiram yaatu na. nee na kon. lu ne xañ na ci. kon nee na yal nañu yàlla jéggal sunu woy dawle ya nee na te seen waajuram moom sunu baay alaaji Madiagne Niang mi nga xamante ni fu ko bis bi masaana fekk léppam lay bàyyi ñëw fii yal na ko yàlla jéggal amin yal na ko yàlla la ci yool bi fam ne ndax nee na ndax kat bis bi sooy na ci lu bëree bëri nee na lu mu xam tamu leer ko nañ nee na kon ñu ñaanalaale ko yéene waale ko ci yool bi suñ borom yërëm ko te jéggal ko Cheikh Mbacke mii nag nee na li mu wax ci moom du bari nee na ndax li mu xam ci moom rek la ñu xam ci moom nee na diiru boroomu melo doonul boroomu melo wenn melo rek la yor nee na kon li mu xam ci moom rek lan xam ci moom nee na muy maandu ragal yàlla. jàpp ci li mu nekk nee na kon li mu xam ci moom rek lañu xam ci moom nee na kon ko ko jàpp boo ko jàppee tey bu ëllëgee nga koy gën a jàpp nee na kon nag nee na kon nu jàpp ko bu baax a baax ndax yàlla mu def suñu diggante ak moom ak bokk doxale ko ci yàlla ba mu koy def tëggu ci kenn nee na kon lu war a am la te ak bokk nag. dafa am lu ci yàlla wax nee na kon li ci yàlla santaane lu yàlla santaane farata la te farata ku ko bàyyi am bàkkaar nee na kon ñu jàpp ko bu baax a baax te jàppale ko nee na sëñ Cheikh mi ngi lay digal nee na nga doole góorgóorlu bu baax ci bokk gi ci lislaam ji ci tariixa bi ndax nee na loolu mooy liggéey bi nee na fi ne nii dañoo toll jamono joo xam ni jëf rek dafa taxaw jëf rek mooy li am solo wax moom ñëppay wax ku war a wax yaa ngi wax ku wërta wax yaa ngi wax waaye jëf nag ñi war a jëf rek ay jëf nee na moom de Serigne Cheikh waajuram wa nee na dafa am lu mu ko santoon moom tal tala ne ba léegi nee na da koo masa woo guddi suuf sedd lool nee na mun ko sëñ xaas toogal damaa bëgg a waxtaan ak yow nee na fitam ni rës nee na mu yaakaar ni moom lu ne la def mu ni ko dama lay xamal ni sa doom sa soxna sa taalube ku ci nangoo ànd ak yow ci dëgg àndal ak moom ku ci nangu la ànd ak yow ci dëgg bàyyi ko dëgg dëgg dana la dimbali nee na ba bisub jon yàlla tey jii nit bu yoroon milliard tax du ko mën a xool ba gis ko la muy jëf ci lu baax rek di ko wax ci lu baax di ko wax ci dëgg loola lay mën a gis nee na waaye du man a gis leneen nee na du toppee nit mukk dara poñitum àdduna ndax boo fiy ñëw ak boo fiy dem kenn xameewu ko nee na kon jëf rek am solo nee na yal yàlla dimbali ñu man di jaamu yàlla bu baax. comme ni ko suñu borom santaane di jëf lu baax comme ni ko suñu sëriñ bëggee sëriñ Touba Xaadimu Rasuul jërëjëf nee na mi sant ñëpp di gërëm ñëpp képp ku fi ñëw nag moom nga fi ñëwal sëriñ Cheikh nga fi ñëwal sëriñ Xaasim nga fi ñëwal sëriñ Touba nga fi ñëwal kon alhamdulilahi rabbil alamina nee na bés baa ngi noonu nee na bañ ko tuddee bisu sant yàlla sant nag. ndool leen rek lay jër yal nañu yàlla dolli amin yaa rabbana jërëjëf Mbacke amin nu ngi leen ñaan nangu leen ñaan amin amin amin amin amin yaa rabbal alamin amin amin amin amin yaa rabbal alamin amin jërëjëf Mbacke أنال له جميع مساء علي خير من علي تسليما ومن خير دار كتاب فوق جميع كتبي ومثله بما مدى لم يكتب من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربي بشوق سامنا بالله فاق كل من أفعل سوانا بالنبي الله سدان وسيق إلى خير الذي يتكهن نال واحد القهار عن الإداب فراد ومسن أدبر ثم لين نففت بها أرضا قصائد وسفت عليه السلام خير مهن يمكن نزافة وكل من اللوي تاهرت wa sunnatu insa rabbi ubayinu nazartu bi kawni abda rabbi qadimu wa safa bi humri wa dari muwattinu nawaytu bi ma liqtira sukuran bi xidmatin li xayril wara nihmal muqaffa muhayyanu katabtu wa kulli faraqa zanba wa sirka وقبل استرى ربي لسي بخده تركا كلامي ونياتي وفعلي توجعات إلى من كفاني سوء والضر وسكا كفاني عفيس مانع جملة الهداه ولي قاد أخبابا بهم أسر النسكا كتبت وخصيص ربي مخاطبا لمن حبهم أنك الكلي سهزادنك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المتبى وأمينك على وهي السماء وأينا على سنته وأمتنا على ملته وجعلنا من أهل سفاعته وأسرنا في سمرته وأسقنا من عوده يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل صواب قراءتنا هذا لمن جعلته سببا هذا لمن جعلته سببا لاجتماعنا هذا وآتي بالقرآن في قبله الساحة الواسعة والهجة البالغة والقول الثابت والنور المستبين في بلاد المسلم وجاف الأرض عن جنبيه وارحمه واغفر له ولوالديه يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آتي بالقرآن لمن يوم الفصل الأكبر ورقى عند السدة وتسقيل الميزان عند القفة وتجرى الإنسان عند الأسرة والورود إلى رحمة والمغفرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ما أتاك به من حسنات فتقبلها وما أتاك به من سيئات فتجاوز عنها بفضلك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم جل ما قرأناه wa barakatan ma talawnaahu min kitabika al-azizi hadiyatan wasilatan wa rahmatan mutasilatan minka ila ruhi abdika allahumma awsi zalika saab ilayhi wajal nuura yashaa bayna yadayhi allahumma akrim bihi muqaamahu wa yassir bihi isaabahu wa daahif bihi sawabahu wajal rahiqal maxtuuma saraabahu allahumma anis ohdatahu warham xurbatahu wa tajaawaz anhu bi fadlika wa karamika wa juudika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin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 ak njabootu Serigne Touba gépp fasaale ci lislaam bépp fasaale ci sëñ Alaaji Madiagne ñaan yàlla réew mi ñu nekk suñ borom saxal fi jàmm yu sax dak rawatina nag ci yëngu-yëngu yi jëm yàlla def ci ndox mu sedd guy yàlla jubóolale askan wi yëpp toppe xol yi def le ñuy mel ni jenn jëmm barki Sëñ Tuubaa kon na ku ne faatiye nu fas ñaan ki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 bismillahi irrahmani irrahim li ilaafi quraysin ilaafihim rihata sitaa'i wa sayf falya'budu rabba haazal bayti allazi at'amahum min juu'in wa aamanahum min xawfin bismillahi irrahmani irrahim inna a'taynaaka alkawsara fasalli rabbika wanhar inna saani'aka huwa al-abtar bismillahi irrahmani irrahim idaa jaa nasrullahi walfathu wa ra'ayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajaa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba bismillahi irrahmani irrahim qul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim qul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim qul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim qul a'uuzu bi rabbil falaq min sharri ma xalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffasaati fil 'uqad wa min charri haasidin idaa hasad bismillahi rahmaani rahim qul audu bi rabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas min charri lwaswaasi lxannaas allazi yuwaswisu fi suduuri nnaas min aljinnati wannaas sadaqa allahu alazim allahuma salli ala sayidina muhammadin alfaatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa nnaasiri lhaq bilhaqi walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi haqqa qadrihi haqqa qadrihi miqdaari alazim وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لصالحين من الخيرات يا الله tawil lana humrana sahih lana badana wa habna rusda wa tawfiqa ya allah wa dammiran kulla a'da'in tudiru bina qabla al-wusuli lana ya allah ya allah wa dammiran kulla a'da'in tudiru bina qabla al-wusuli lana ya allah ya allah wa dammiran kulla a'da'in tudiru bina qabla al-wusuli lana ya allah ya allah wa najini wa jami'a al-muslimina ma'an wa najji walidati amina ya allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barke Sëriñ Tuubaa yal na yàlla nangu ñaan yi te yàlla yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha motali yéenam ji mu am ci liggéey lislaam bi te barke maam di baax de barke waajuram yu baax de barke ñu mu wut mbokki jullit yi fi daje ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi Sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général de Mouride di ko ñaanal yàlla yokk ko wér yàlla dolli ko kàttan yàlla bàyyi ko sagoom ba yéene ji mu am ci liggéeyal lislaam ci toolu maamam ju baax ji di Seexul Xadim yàlla mottali yéenam te ñu ànd koog moom te yàlla defal ko ci lu kawe njort barkeb Serigne Touba noo di nuyu di nuyu Serigne Cheikh Thiam mi xaritu boromam. di sëriñ Mbaye Diop nuyu sëñ Modou Awa Diop nuyu sëñ Thiam sëñ njaga Thiam ak sëñ mbay Diouf a ah, noonu seen mbokkum am Aliou Diop ñu bokkoon fi dajee nag ñooñu mu tudd ñëpp ci ay sëriñi daara ah ñu bokkoon di jàng téere suñ borom bi nga xam ne amut lu ko gën a màgg amut lu ko gën a màgg képp koo xam ne yàlla dogal na nga xëy ci ku deful ni yow rek gënu am xëy ka nga yamalum xëy kay mooy ko xëy ci téere bi ndax téere bi boroom bi ko wàcc jaare la ko ci sallallahu alayhi wa ñun ñu di ci liggéey ci keppaaruk Sëriñ Tubaa fi jaar fépp ñoom yemalewuñ kook leneen téere bi rek kese waaye boolewuñ kook dara yemalewuñ kook dara foofu mu jaar nag muy suñ borom ba yegg ci sëñ bi liñ nu ci jàngal mooy gisuñu li tàmbalee ci asamaan ba ci suuf ak juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf lu fi gën a kawe alquran gën koo màgg dañu fee jàngal ne amul te dañu wax ne lu ñuy tudd rek ci kaw suuf tudd yàlla moo ko gën a màgg te mooy sikkurulaahi sikkurulaahi moomu nag sëriñ bi ne bi ci gën a màgg mooy jàng alquranul karim kon li gën a màgg ci ab jaam di xëy di def mbaa muy gont di ko def loole mooy alquranul karim te mooy jàng alquranul karim kon Serigne Cheikh mi dàkkantale boppam xaritu boroomam tey xaritu nag képp ku bëgg yàlla tey sonn ci yàlla moo ñu dajale woon fii ngir bisam bii ñu santale ko ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala muy bis boo xam ne da ko jagleel tamit Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké ak njabootuk Serigne tubaa gépp ak njabootuk boppam gépp moo ngi ciy fàttaliku it sëñ Madiang Ñang alaaji Madiang Ñang Serigne Saliou Touré alaaji Ñang daf noo daan gunge ci jotaay bii moo daan jiite jotaay bi bis bii bu masaan jot mbégte mbégte lay yendoo moom lay gonte moom lay fanaaloo te li ko ci gën a neex la ci jiitu mooy alquraanu karim ak njàngum xasaayit mi ak Serigne Touba mi fi fiy waxtaane lii mooy li nga xam ne moo doonoon mbégteem ci bis bi nga xam ne mooy bisub Serigne Cheikh Thiam xaritu boromam Serigne Cheikh nag ginnaaw bu ñu nuyoo suñu mbokk sëñ daara yi wax leen rek ci wàccaayu alquran ngir nu xam ne alquran lu mat a fonk la lu mat a téye la saytaane ñu dab rek jàpp ne am na alxuraan doy na alxuraan doyut walis lu dul moom waaye la ñu sëriñ bi jàngaloon moom mooy alxuraan doy na sëkk walis lu dul alxuraan te njàng njàngaleem sëriñ boobu bi ñu xoolee sëriñ bi dañoo gis ne ci alxuraan képp la jàppoon boolewu ci lenn ñi mu yar seexal leen bàyyi leen i dëkk ak mbooloo boolewul leen ak alxuraan ak dara alxuraan dong lu mu ca yokk mooy jaamu yàlla ak bay weesuwul jaamu yàlla ak liggéey alxuraan jaamu yàlla liggéey waaye alxuraan ak Sëñ Tuubaa xamu ko te mosu koo xamle kon nag bu ñu ba seytaane dab ñu ban jàpp ne alxuraan rek doyut loolu nañ jàpp ne gàllankoor la boo xam ne seytaane nu koy fexeele rek te loolu liñ ci mën a jàngat mooy sëriñ bi doyloo gum doyloo woon alquran te lépp loo xamante ni am na ci àddina mu toog ci béréb bii fekkiwu ko te loola fekk si ko ci béréb bam bii te ñay wut alquran ak leneen boole seen leneen ak lépp lañ am ñëw fekk moom mi doyloo woon alquran képp ñu teg ko ci am te amu ci soxla tabis bu nekk ñu indi di ci sotti loolo war nañoo jàngal ne alquran doy na sëkk walis lu dul alquran waaye lu dul alquran doyut walis alquran kon nag sëriñ Cheikh bis bi boo ko jëlee jiital ci alxuraan dajale fi suñ mbokk suñ daara yëpp ak xale yi tuut tànk yi nga xam ne yàlla suñ borom tàmbaleegu leen a bindal bàkkaar nga def ci sant sa borom delloo ci njukkal njabootu sëriñ Touba gi ak sëriñ Touba ñaanal ci jàmm réew mépp rafet na njort ne loolu nga ci fas suñ borom dana la ci defal lu kawe njort noo ngi sant yàlla bu baax nag ci dellu si gi ñu yàlla mayaat ñu dellu siwaat ko ci sa jotaay bii ci sa bis bii ndax yàlla dañoo yàggal dañoo bokkoon nekk daaru minam ah suñu sama kër ak sa kër jàkkaa dox ci diggante bi muy kër alaaji Moussa Lo ñoo ngi koy nuyu baax di ko siyaare du nuy alaaji Cheikh Thiam de di si ñaana laale it suñ góor gu baax ga Serigne Omar Lo lu baax rek la daan wax di ko digle di ko santaani fu mu mas a toll bu ma saan toog ba mu yàgg danaan su may wax de dëgër na léeg-léeg ma wax ak nit mu am la ko ci naqari waaye damaa yëg ne li ma yéene saa bopp yéene saa njaboot rek loolo laa koy digal waaye manoon na mënoon na ma cee bañ a fekk kon moom it ñu ngi koy sant di santaale suñu waajur wa Serigne Makhtar Diop waaye duñu fàtte Serigne Thierno Diouf Lambaye waaw duñu leen fàtte ak ñoom Baye Mbaye Diop ñooñu ñun bokkaloon dëkk foofu ñii ay mag yoo xam ne magi lislaam lañ magi taalibe murid lañ ñu baax ñu boole woon seen bopp loolu nag moo war a am ci réew mii ñu nekk réew mi dañoo dem ba mu yàgg lekk ak naan ak lu ñu dajale nar ko yàq waaye nit bu yitteem nekkee lekk lu mu yàgg-yàgg moog jën yi ci biir géej gi rek ñooy nuroo jikko wala mala yi ci àll bi ñun yàlla indiwuñu fii ngir lekk ak naan ak lu ñu def ci suñ poos yàlla dañu fee indi ngir diir bu néew ñu mën a am lu ñu def ci suñ biir mën a jaamu yàlla rafetal suñu diggante mën a del dellu nag nopp lu ca armeel ya loolu rek la ñu fi yàlla bàyyee ah am na ñeneen ñu war a ñëw sax ci waa kër Serigne Sidi Matar nee na ndongo lii mu àndal waaw sëñ sëñ Cissé waaw xam naa ko baax sëñ Cissé sëñ Daara ñëpp xam ko muy maxdumul Quraan moo moo moo ko fi yabal mu ànd ak ñoom ñëw mu ne sëriñ Daara yii nag nii rek lii rek la ci bëggoon bis bi bisub alquran la ak xasida ak jokkuk bokk jëflante lu rafet waxlante lu rafet dimbalante tey ñaan suñu borom mi nga xam ne du jeexal dara yàlla nañu yàlla may wér may nu gudd fan may nu wér wérug njaboot gépp ndax boo wéree te sa njaboot wérut wér ga du dem fenn mi ngi ñaan wér ak wér la ñu ngi ñaan wér ak weer la nee na sëñ Mbaye Diop gërëm nañ leen sëñ nee na sëñ Njaga Caam mi seen daara ak njaboot gépp lañ indi ñoom itam eh, ñoo bokk nekk fii Ousmane Diouf ak sëñ Ousmane Diouf mi nga xam ne ñoo bokk nekk fii waaw moom Serigne Sidi Matar moom yaakaar naa ne am na am na mën naa cee seede lu bari ndax euh, bi may nekk Daaru Minam jàpp naa ne lettre bi ko njëkk bind maa ko doon bind sama loxo noo ànd it ba ci sëñ Sidi Matar boobu dajee nañ fa ak président Abdou Diouf waaye ñun ñoo njëkk a dugg président Abdou Diouf ma ànd ak maître Madické Niang waaye bi ñu yegsee ñun la njëkk a recevoir ci ñoom loola it tawfeex ju rëy la joo xam ne sëñ Cheikh amoon nga ko sëñ Sidi Matar te xam ku baax man koo seede jërëjëf jërëjëf jërëjëf ni ko sunu borom diglee inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman kooku day wax wa akmalul wara xalxan wa xulxan shahra wa mislu xattu lam yura walan yura fi siyami sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbooloo mi fi teew yépp di leen siyaare di jël seen nuyoo ak seen siyaar teg ko ci loxol sëriñ Cheikh Thiam xaritu boroomam mu tegal ma ko ci loxol bokk yi ak dëkk bi ak gox yépp di profito di ñaan sunu boroom jàmmam ji ak xéewalam yi ak yërmandeem ji ak tawfeexam ji ak kartanam gi ak yërmandeem ji mu tëbbuñu ko bu baax a baax a baax a baax ni ñu ko fekke woon daaw daaw jéeg fekke ko ren ñu fekke ko déwén déwén déwén ay déwéni déwéni déwéni déwén ci kattanam yërmandeem bi xurmati muhammadun xayru xalqillah xam naa comme dañoo yëg ci yaram wi ay coona yéene jiñ am duñ mën a feeñal lépp waaye nu mu gàtte na ko bare ay njariñ kon daal dañuy wax ne rek sëriñ Cheikh Thiam xaritu sa xaritu boroomam sa yéene ci jaam yàlla yi yàlla na ko yàlla mott li ndax bu sa yéene àggee ñëpp am jàmm ñëpp am xéewal man mii di wax de bu fekkoon ne njariñ lu ma lay jariñ dong la kon wax dëgg yàlla dooma jàpp yaa ngi may taxawu nag ci saayir ak ci baatin di sonn ci man lool lool lool ci baatin kon yàlla na yàlla dolli xam-xam bi dolli may gi dolli yërmande ji dolli wërsëg bi dolli kaaraange gi di wax ne askanu caameen na ngeen góorgóorlu ndax sallallahu alayhi kat ba mu feeñee ca xuraysin ba mu feeñee ci xuraysin sallallahu alayhi wa sallam gi mbindeef bu mu feeñee ci xuraysin xuraysin dañ koo tiitaroo Cheikh Ahmadou Bamba bi mu feeñee ci askanu maam maaram askanu Mbàkke waa Mbàkke dañ koo tiitaroo kon daal yàlla saa su ko neexee day feeñal ay kéemaanam ak i xar baaxam ak i tawféexam ci fum ko neexe fum ko neexe ak waxtu wu ko neexe kon ñu leen di laabire daal ne leen nit ki lu ko yàlla may da ko war a sante boroomam muy doom ju baax muy wërsëg wu lew muy dëkkuwaay bu yaatu muy waruwaay bu muy demee moo xam mbaam mu baax mu muy demee la wala oto bu baax waaye ab jaam daal dafa war di sant boromam di ko dolli sun borom moo ne a in sakartum la asidanakum ndax da ngeen may sant ma dolli leen faskuroo nii askurkum sant leen ma ma dolli leen daan ne man lam yuskiri naasa lam yuskiri laaha ku dul sant yàlla nit doo sant yàlla yàlla lu muy jox nit daf koy jaar lu muy jox nit daf koy jaarale ci nit ndax amaguñ maqaamam jàkkaarloog suñu borom kon daal yal nañu yàlla xiir ci sant ndax ñu mu ñuy dolli su ma waxee ñetti waxtu ñeenti waxtu ci Serigne Cheikh Thiam du du tax ma jeexal te du doy kon nag lu du doy loo ca am luñ doyloo moo am man daal maa ngi seede ne bu yéeneem àggee ci jaam yàlla yi ñu bari am jàmm xéewal man nag maa ngi kalaameek kalaameeg ma sàmba mi nga xam ne moom lay tiitaroo ci dooley Cheikh Ibra yàlla dolli may gi dama ko daan ñaanal di ko wax ne ko li fi ne bu deeg jay la yàlla na ko yàlla dindi def kook may bu deeg may la yàlla na ko yokk te saxal ko waaye dem naa ba xam ne ak may la kon yàlla na ko yokku saxal ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.